am internaute de Senclic tey gannaaw bi ñu leen nuyoo sant leen seen émission laadum dafa déplacé wu ñëw ci bergerie boo xam ne muy Galoya donc Galoya nag su ngeen ko déggee tur bi ab dëkk la boo xam ne nag ci booru Fuuta dëkk bu nekk ci Fuuta am benn ndaw boo xam ne dafa nekk di ñafe di ñafe tey ñu naan ko abukan mu yëngatu ci wàllu élevage nga xam ne boo tuddee Galoya xel bi yëpp dem ci moom mu am ci liggéey bu am solo nag boo xam ne def na ko ci Galoya ci wàllu élevage rawatina ci li nga xam ne moom la ñu tuddee émission bi muy laadum tey tax na jeunesse su Sénégal yëpp kenn defatul immigré ku ci nekk yaa ngi dugg ci élevage à travers liggéey bu rafet bi nga xamante ne nii def na ko ndax tey néew na ci bergerie boo xamante ne fii ci Sénégal da nga fi dugg tey doo fekk produit Aboukan donc loolu nag man damay faral di ko wax cest à di fexe di génnee ndaanaan ni di wane exemplaire yi di leen mettre en devant de la scène pour que sénégalais xam ne carrément ñii ñu mérité la euh, wane lañu donc tey nag fi lañ ñëw ci bergerie bi pour fasciner leen donc won ay produits won liggéeyam aussi won leen Aboukan donc ñu waxtaan ci élevage fi mu jaar ak fi élevage tollu actuellement tey. dugg nañ ci biir Galoya tey ñu ngi toog ak koo xamante ne ni moom moo nekk patron Galoya Abou Kane nga xam ne kenn dootu ko présenté ci wàllu l'élevage nit ñi min nañ ko comme ni ma leen ko waxee sànq aussi def na ci liggéey bu extraordinaire donc liggéey na ci liggéey boo xam ne mérité na takkal ordre national du mérite parce que tey néew na ci bergerie yooyu dugg Sénégal te doo fekk produit doo fekk loo xamante ni ci loxoom la jaar moo ko liggéey donc tax na jeunesse bi yëpp actuellement nii donc bëgg euh, nekk éleveur tax na jeunesse bi yëpp bëgg nekk dugg ci dugg ci élevage ci laadum bi ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko ci aussi tax na tam aussi tamit jeunes yi kenn namatul tukki donc moom la ñu fas waxtaanal balaa booba nag donc ñu euh, jox ko taalal ko micro bi mu nuyu internautes yi après ñu reveniraat ci waxtaan bi c'est maintenant Abou maa ngi lay ziar. dellu ziar Jules Ba di lay nuyu euh, yow wax ñi nga àndal euh, di nuyu bépp internet bu ñuy suivre di nuyu suñu mbokku éleveur Sénégal yëpp ak diaspora bi. ok merci yaa ngi jóge ci journée nationale de l'élevage donc tenue à Tambacounda le jeudi 29 bi nga xamante ne ci lañ jugle ñu gis la nga ànd ak son excellence monsieur le président de la république Macky donc mu nekkoon un moment très fort de réflexion et de partage euh, et partage donc tey jii évoqué ngeen ay thèmes yu bëri foofu ci wàllu développement bi aussi tamit ak euh, euh, visite yi ak exposition bi ngeen fa xam tey ji lan nga ñu fa mën a wax ak lan nga représenté woon foofu ci journée nationale de l'élevage boobu waaw euh, journée nationale élevage bi bon man maa ngi foo euh, en tant que commissaire du salon donc comme ni nga ko xamee journée nationale bi ñaari pàcc la euh, pàcc bu jiitu bi mooy chapito bi nga xam ni fa lay président recevoir éleveurs yi beneen pàcc bi mooy le salon de l'élevage en tant que tel mooy fi ñuy def exposition animaux yi exposition entreprise yeeg panel yeeg yooyu yëpp muy amee euh, donc euh, partie boobu partie salon de l'élevage bi euh, man maay commissaire bi donc suñu fàttali ke fàttaliwee nit yi rek journée nationale élevage ca njëlbeen ba li ko indi mooy en 2014 le président de la République dafa récupérer le ranch de Dolly au mains de des privés Euh, jébbalaat ko euh, éleveurs yi euh, léegi nag si dans ce cadre là mu joxoon rendez-vous nit yi éleveurs yi au ranch de Dolly bi mu leen fa joxee rendez-vous nag éleveurs yëpp daje foofu mu nekkoon audience entre éleveurs yi ak président bi fa la président nag jóge décrété la journée du 26 novembre comme la journée nationale de l'élevage mu nekk journée bi nga xam ne chaque année Euh, dañ koy fêter si benn région Sénégal chaque année ay régions yi dañuy ayante euh, donc euh, dañuy daje foofu ndaje bi nag mooy ñaari pàcc yu moo wax léegi d'abord éleveurs yi dañu exposer li ñuy liggéey wane toutes les facettes de l'élevage du Sénégal toute filières confondues wane également su ñu waxee nag les filières wax nañu aussi euh, les tous les acteurs que ce soit les éleveurs que ce soit les vétérinaires que ce soit les provendiers yi di produire aliments que ce soit même les institutions financières yi di financer ak ak yeneen ak yeneen ah donc bépp euh, organes bépp structure buy yëngu si si élevage ñëpp euh, joxante foofu rendez bu pour waxtaan seen biir safante seen biir natt seen bopp xool lan la ñuy def également pour aussi dans un second temps éleveurs yi jàkkaarloo njiitu réew mi wax ko seen mbébét wax ko fu ñu toll si seen liggéey moom it aussi euh, mu tontu leen wax leen li mu nama defal leen ak fan la toll ak ñoom donc euh, en quelque sorte c'est ça la journée nationale de l'élevage. ok yéen ngeen demoon fa en tant que acteur Abou kan tey ji fi nga toll ci wàllu élevage donc ngeen dem euh, daje ak éleveurs yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk au niveau de la région de Tambacounda tey ngeen def amee la fa fête bi nga xam ne Tamba soo ko waxee dëkku. élevage la tey ji donc sur le plan régional lan nga fa gis tey en terme de qualité aussi tey yan jafe-jafe la éleveurs yi am foofu ak tamit lan nga yaakaar ne donc président dina leen soutenir ci aspect financier bi nga wax pour élévage bi di gën a dox foofu. waaw bon Tamba moom soo ko xoolee euh, dafa nekk zone bi nga xam ni tampon euh, euh, entre plusieurs régions hmm? donc la laal na si régions yu bëri. Euh, te soo xoolee euh, les plus grandes réserves euh, pâturage en termes de pâturage <laughs> ñu ngi foofu ren si dolli bi ma ta bi ma bi ma bi ma cité sànq une bonne partie mu ngi mu ngi si région de de de de Tamba donc mu nekk zone bi nga xam ni si nawet bi passé ba ñax bi commencé manqué. presque mun nañu wax plus de 60 pour cent euh, jur gi dañuy dem foofu euh, donc nit yi éleveurs yi dañuy dem foofu Mangane foofu euh, mu nekk zone bi nga xam ne day attirer une bonne partie de l'élevage en un moment donné à cause des grâce au pâturage mu nekk aussi de une zone de grands agriculteurs donc de grands éleveurs mu nekk également une zone frontalière frontalière de de plusieurs États ah parce que y au moins Euh, trois états wala quatre états yi nga xam ni euh, am nañu seen frontière ak euh, Tambacounda donc mu nekk une région très très importante bi nga xam ni yaakaar naa ni suñ suy defee effort tuuti day nekk vraiment une une grande zone bi nga xam ni qui nous permettra d'atteindre l'autosuffisance et en en viande et aussi en lait. et surtout également euh, en, en, en, en, céréales et autres, quoi, parce que c'est une zone d'agriculture aussi. Euh, maintenant, euh, il faut bien remarquer, bon, moi, élevage extensif, oui. Élevage intensif, oui, nous avons commencé, donc, nank mais ce n'est pas si développé que ça. Et je pense que faut aussi, euh, s'il y a quelque chose à faire aussi, il faut le voir accentuer pour dire, euh, un peu intensifier euh, l'élevage de cette, de cette zone-là. pour que euh, au moins une partie de l'élevage extensif migre de, l'élevage extensif en élevage semi-extensif. Euh, d'autant plus qu'il y tout, tout le potentiel là-bas. Euh, leneen li aussi les éleveurs yi ñuy nekk foofu aussi ñu si gën a bëri il manque de moyens ils ont besoin d'être aidés et dans ce sens également euh, soo xoolee si discours président bi euh, il a beaucoup insisté sur ça te nee na aussi yenn institution yu bëri yu mel ni ay DER ak yooyu nga xam ni dañuy toppatoo mbirum financement éleveurs yi ak agriculteurs yi dinañ leen yokkal seen i seen i seen i seen i budget pour que ñu gën a mun a jàppale ñooñu et man personnellement j'ai fait le tour avec le président gis naa ay éleveurs yu bëri bon chaque fois il leur pose de savoir est-ce que ñu ngi lay financer am na yoo xam ni sax dem na ba laaj leen woo les personnes concernées ah et les patrons de DER wala FONSIS sax yooyu FONGIP ak yooyu ne leen est-ce que yaa ngeen di financer yax ñi donc Euh, mu ngi def connexion directe entre les éleveurs et et ces institutions là et je pense que au sortir de ces journées là peut-être que euh, am naa yaakaar ni dina am éleveurs yu bëri euh, dinañ leen jàppale ci financement donc peut-être ils vont passer de l'élevage extensif à l'élevage intensif ils vont passer d'un certain nombre quand même euh, jugé un peu dérisoire un nombre quand même important qui peut nous aider à atteindre euh, l'autosuffisance ok c' est important la connexion directe entre le président et les éleveurs mais tey jii aussi ñu ngi lay gis ci image yi yaa ngi accompagner président ci standing bi di ko won ay sujet tey euh, donc président tey soo ñu doon nettali wala soo ñu doon jox ci kàddu donc bi mu gisee standing yi tey donc lan la la doon wax ci à travers ci liggéey boobu nga xam ne def nañ ko ci exposition bi. waaw wax fa dëgg yàlla moi j'ai vu un homme vraiment passionné. Euh... un homme bi nga xam ni vraiment ci euh, jox na cër euh, éleveurs yi hmm, parce que dara gënul neex bon yow nga ñëw exposé lu toll ni président de la république ñëw toog ñëw sa box waxtaan ak yow laaj la say jafe-jafe dem ba laaj la est-ce que ñu ngi lay financé wala financé wuñ la dem ba sax woo kii di financé ne ko eh, kii bëgg naa ngeen financé ko ainsi de suite euh, stand yi bëri woon na lool parce que cette année quand même on a battu le record mais il a pris son temps Euh, pour def li mu euh, benn benn euh, mun naa wax si salon bi la gën a yàgg sax que si beneen chapiteau bi ñu doon def les discours te en général foofu la euh, c'était c'était l'inverse pour dire qu'il a pris son temps vraiment pour discuter avec les éleveurs pour xam yan mooy seen jafe jafe ak yooyu et pour dire que vraiment affaire yi li mu gis foofu intéressé na ko parce que foofu toutes les filières étaient représentées là-bas mais filière par filière éleveur par éleveur ku stand bu nekk au moins def na fa trois minutes pour discuter avec les les les les personnes am na stand yoo xam ne def na fa dix minutes ce qui n'est pas évident mënoon na euh, mais bon il a pris son temps Euh, pour dire que vraiment intérêt bu mu porté si loolu te loolu aussi lu rëy la si si éleveurs yi ah parce que quand euh, comme ni ñuy wax euh, tey jii moom moo nekk au sommet di nga am sans intermédiaire di nga ko mun a wax say jafe-jafe te moom it automatiquement dina mun a contacter la personne concernée directement pour ne ko lii ak lii ak lii jox ko ay consignes. voilà grosso modo vraiment ça a été un échange fructueux et un échange intéressant bi nga xam ne am nañ si yaakaar. ok Abou Kane euh, tey nekk patron Galoya donc Galoya di bergerie boo xamante ne donc liggéey lu am solo ci wàllu élevage tey Galoya aussi di dëkk boo xam ne ci région de Fouta tey nga ñëw tuddee ko ci sa bergerie bi liggéey ci lu am solo créé ci ay sujets yoo xamante ne tey néew na ci bergerie booy romb wala dugg ci fii ci Dakar te amul ay produits Galoya donc jeunes éleveurs yi tey jox nga leen beneen motivation tey gën nga yaatal affaire bi ci secteur bi nga nekk tey nga toog ak fi nga toll fi nga démarré ba fi nga toll fi l'élevage toll tey ngay dégg sa tur dégg Galoya donc loolu nan la lay def jaar-jaar bi donc est-ce que tey mun nga taxa wax ni tey la mission accomplie. waaw euh, du ma ne mission accomplie peut-être en partie <laughs> une bonne partie du chemin euh, def nañ ko di si sant yàlla bu baax euh, mais bon sentiment de fierté laa am sentiment de fierté laa am. Euh, parce que peut-être bi may créé bergerie Galoya en 99 euh, ku ma ne woon peut-être tey jii en 2023 euh, dina egg niveau bi wala bergerie Galoya dina tax ba laadum développé nii peut-être xëy na damay ne du ma ne du ko gëm parce que j'y croyais franchement mais dinaa ne ah loolu ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire ah bien que nag bi mu koy au début j'y j'y j'y toujours cru ah man ñi ma xam-xam ne man dama mës a gëm ni euh, laadum bi dina am fu mu egg dama mës gëm ni laadum bi dina dundal éleveur bi dama mës gëm ni aussi euh, élevage Sénégal dina am fu mu toll te ba tey loolu laa gëm hmm? ba tey loolu laa gëm parce que dama gëm ni élevage même Sénégal sax fi fu mu toll xëy na ñeneen ñi ils sont satisfaits mais man je juge waroon na dépasser fii euh, parce que quand même euh, en 99 euh, comme on dit rien que si biir Dakar rek éleveurs yi dañ leen doon compter mun nga jël say baaram nga compter ñaata éleveurs ñoo fi nekk ñuy def laadum soo boobu suñu xëyaan pour def visite ñu commencé par exemple ay 9h bon balaa 14h dinañu pare visiter éleveurs wu Dakar yëpp mais léegi soo jugee 7h du matin dem ba 19h euh, pour nga jeexal un quartier rek c'est un problème donc pour dire que vraiment les choses ont évolué. les, les, les, les, le nombre d'éleveurs et le nombre de moutons là donc, se sont multipliés. Ah, donc, euh, euh, on a eu <laughs> euh, vraiment une augmentation extraordinaire si, si, si, si, si, si diggante bi te loolu vraiment c'est au grand bénéfice des éleveurs parce que plus éleveurs yu bees yi di di yokku plus euh, éleveurs ñi fi nekkoon di gën a mën a jaay hmm? donc plus filière bi di gën a yëngatu parce que gis nañu tey jii Euh, bu njëkk ba bon euh, au début des années 2000 ah les gens ñi doon élevé par passion rek lañ ko doon def defuñu ko woon pour am si dara mais gis nañu léegi euh, soo xooloon tey 90 pour cent éleveurs yi yu koy def dañ ko def esprit investissement lañ ko defee ñu gën a bari léegi su ñu defee loolu esprit investissement bi moo leen jiital xëy na am nañu passion bi comme sénégalais yëpp nu ñu amee passion élevage mais esprit investissement bi mooy pousser nit yi par exemple ñu dem di tabax bergerie di koy carreler di du di def une euh, grande communication di euh, fay ay salaire di si sonn vraiment coono boobu yëpp a investissement boobu yëpp c'est parce que les gens dañuy yaakaar dina am dina leen njëriñ ah moo tax ñu def ko des jeunes yi nga xam ne tey jii ñu ne la visa mu ngi nii xar mu ngi nii nga ne noo man xar bi moo ma loolu yëpp c'est parce que am nañ si moo tax ah te loolu euh, au début des années 2000 amul woon Euh, donc euh, yokkute boobu nag euh, dañ siy sant yàlla bu baax a baax hmm? am na rôle bu ñu si bu ñu si joué parce que bon nous on y a cru dès début parce que man je me suis dit que dès début bon il faut il faut professionnaliser les choses lii déjà c'est un yi nit yi bëgg nañ ko passion boobu mun na pousser nit mu dem jusqu'au bout donc nañ ko gëm et mu amoon benn ligne de conduite bu ñu amoon bi nga xam ne qui n'était pas forcément euh, appréciée par les autres ou kii yi nga xam ni peut-être les autres aussi euh, gëmuñu woon ni ligne de conduite boobu dina dina dina aboutir ñu gëm ko continuer xuus ba résultat bi am euh, au bout de d'une dizaine d'années euh, bergerie bi nekk une grande bergerie de référence nit yi commencé di référé aussi si bergerie bi ba tey ji macha allah affaire yi toll fu mu toll nii. donc di si sant yàlla bu baax donc c'est un sentiment de fierté bi ñu am euh, de voir que la bergerie de Galoya est une bergerie de référence de voir que le nom de Galoya est maintenant euh, allé euh, internationalement euh, donc di si sant yàlla bu baax a baax di wax rek liggéey bi ba tey jii ñun oh, oh, on est loin de satisfait hmm? dañu ne rek bon suñu objectif y a que une partie qu'on a mais lu si gën a bëri eggaguñ fa dal voilà. ok tey laadum bu ñu ko waxee c'est typiquement sénégalais doo ko dégg fenn fudul Sénégal donc tey euh, nga bokk ci acteur yi def ci liggéey bu extraordinaire comme li ma koy faral di wax sànq man euh, damay faral sax di wax ni fu ma toog nee noo grand Abou Kane le doyen Abou Kane donc mérité na sax tey tappal ordre national du mérite parce que fi mu doore ak fi mu indi élevage ndax man j'ai fait le tour wër bergerie yi ndaw yëpp ñi ma ci dajal ñëpp li ñu may wax naan kenn bergerie lañ may tuddeel wala produit yi ñu may tuddal yëpp ay produit yoo xam ne donc fii lañ leen créé ci Aboukan jaar na ci loxoom dem tey mu nekk une mais tey jii tey sur le plan international sur le plan de la communication exportation bi tey fan ngeen toll tey sur stratégiquement pour yóbbu xaru laadum au niveau international donte sax ñu ngi lay gis yaa ngi dem fu nekk tey di représenter Sénégal ci wàllu élevage di bokk ci ay festival mais tey ji Sénégal jeune éleveurs yi fi nekk nga xam dañoo bàyyi seen billet d'avion bàyyi seen lépp dugg ci à travers yow à travers Galoya tey lan nga leen war a mën a jox une de motivation boo xam ne c'est international. waaw xam nga sur ce plan là aussi bon ñu ngi siy dox bu baax bon en dehors même du fait que je sois. de Galoya, de, de, la bergerie Galoya. Je suis aussi euh, le président de la filière ovine au Sénégal. Donc en ma qualité de président de la FENAFO aussi, j'ai ce, ce, rôle à jouer. Parce que la fédération, bi ko taxa jóg aussi euh, mooy fexe ba éleveurs yi di mën a dund si lu ñuy def nii ah ba élevage bi di leen di mën a njëriñ fexe aussi ba élevage laadum traverser frontières yi ah fexe aussi ba nga xam ni euh, lu ñuy def suñu élevage bi rentable ah fexe ba créer emploi fexe ba créer également autosuffisance euh, en en mouton donc loolu mooy objectif bu fédération bi ci si loolu la ñuy dox maintenant euh, pour euh, élevage yi rentable il faut nga xool il faut vraiment nga xool say charges naka nga koy wàññee ah naka lay lay lay coûts yi amoindrir ba pare nga xool aussi naka ngay yokkee say say say say say revenus Euh, maintenant on se euh, après après avoir fait le diagnostic euh, gis nañ ni euh, lii ne woon il y ans cette cette dernière décennie là depuis trois quatre ans mu ngi estompé wu c'est-à-dire progression bu graw buy amoon ah nombre éleveurs yi di yokku Euh, euh, ventes yi di di di di di vraiment euh, di exposé loolu depuis deux ans trois ans mu ngi mu wàññeeku lu tax mu wàññeeku nag y un phénomène de saturation ah parce que léegi y a beaucoup d'éleveurs ah et donc comme il y a beaucoup d'éleveurs il y a beaucoup de de moutons laadum avant certains sujets y avait la rareté donc soo amee woon laadum bu xaw a rafet rek da koy jaay facilement parce que dafa raaroon mais léegi laadum yu rafet yi. dafa bëri donc y en a partout ah ce qui fait que nag y a un phénomène de saturation maintenant pour man c'est le véritable problème parce que éleveurs yi tey jii ñu si bëri comprendre uñ loolu parce que tey jii soo tendre micro éleveur soo ko ne lan mooy seen jafe-jafe lu mu leen ñu wax mooy aliment bu cher voilà wala nee la ngooñ bi cher na alors que moi je dis que xëy loolu jafe-jafe la mais jafe-jafe bu gën a garaaw bi mooy mévente bi parce que tey jii aliment bi suñ ko ja doon jaay 2000 francs le sac koy jaay 1000 francs le sac tamit te yow te yow mënoo jaay da nga am problème par contre tey ji même su aliment bi jaa jaroon tey vingt mille francs ngooñ bi jar dix mille francs te yow ngay jaay si on sait prix yan yan prix la laadum di jar tant yaa ngi jaay mais da nga siy génn donc njaay bi moo ëpp solo tey jii ah bien que lële am na solo ah mais njaay bi tey jii dafa wàññeeku donc su fekkee nag coût yi dafa bëri ba pare njaay bi doxul là c'est la catastrophe et c'est le phénomène qui est en train de se passer ah instant bi euh, aliment bi cher na ngooñ bi cher na euh, euh, faj paj bi cher na ah mais njaay amul ah donc la loolu nag lan mooy solution bi mooy il faut ñu ñu ñu ñu fexe yokk marché yi parce que marché bi waruñu ko limiter rek Dakar kese wala si grande ville yi parce que soo xoolee business u laadum bi si dakaar rek ak périphérie bi ah bon ak les capitales régionales ah foofu la yem ñooñu rek ñooy def laadum yi surtout nag les deux régions Dakar Thiès et Saint-Louis peut-être hmm? donc euh, affaire bi nag dafa war a gën a yaatu augmenter les marchés déjà mooy nga kii ko si biir à l'intérieur du pays parce que à l'intérieur du pays aujourd'hui euh, laadum bi war na fa mën a dox tey jii suma mbokk pël yi wala suma mbokk séeréer yi nga xam ne ay sàmmkat la ñu war nañu mën a ñëw tey jii ñoom c'est une clientèle potentielle ñoom war nañu mën a ñëw tey jii jënd suñu laadum yi dem yokk ko seen seeni i seen seeni seen i seen i cheptel parce que tey jii laadum bi soo ko dugalee si biir pël-pël bi ah euh, su ma mbokk pël bi fu ma doon xaar ay deux ans pour jaay pël-pëlam quatre-vingt mille soixante-dix mille soixante mille mais avec le métissage laadum pël-pël mais métis bi su amee six mois rek mun na ko jaay. mun na ko jaay 6 mois rek su amee mot na tabaski te mun na ko jaay su ko doon jaay tey jii un demi cent pël pël laadum de de mois su suuree soo ko indee Dakar lu mu dee dee di nga ko jaay 175 000 200 000 donc du coup euh, pël bi moom dina gis ni non seulement euh, du xaar deux ans pour jaay produit am chaque chaque année mun na jaay produit am ah si on sait xar bi mun na jur ñaari yoon mais aussi prix bu mu doon jaayee day yokk donc de da da si yokku qualité de vie am de da si yokku pouvoir d'achat am da si yokku donc kooku war na comprendre loolu wala état bi war na ko comprendre loo ah de telle sorte que loolu ñoom suñ ko comprendre comme ni ñu comprendre nii avec le Guzara day yokk seen euh, race Gobra bi euh, bu fekkee nag yi la parce que léegi tey ji loolu pasteurs yi comprendre nañ ko tey ji da ngay gis suma mbokk pël bu jaay dix nag local dem jëndi benn benn benn Guzara am na ñoo xam ne sax dañ koy tiitaroo que man su ma su ma am naa Guzara ah euh, nga wala nga dem eh, jaay sa tool dem jënd eh, gouzara tey jii moom gars yi dañ koy tiitaroo donc nu ñuy tiitaroo gouzara yi tey jii le même phénomène doit se reproduire avec le laadum tey jii noonu la ñu war a mën a jël suñu laadum yi yóbbu ko si seen cheptel pour yokk ko ah loolu suñ ko defee dina am amélioration génétique bu am au au au niveau des races locales loolu ça va constituer un marché parce que bis bu ñoom les pasteurs là bi ñu comprendre ni euh, laadum bi njëriñ boobu la leen amal gëm naa ni. Euh, loolu ce sera un gros marché pour nous parce que bu boobaa ñoom ñu bëri dinañ daw ñëw jënd si suñu laadum yi loolu muy benn beneen bi mooy sous région bi sous région bi tey ji euh, ils ont la même culture que nous ah donc ñoom nu ñu ñun nu ñu buggee xar jur ñoom noonu la ñu bëggee jur te ñoom ils s'intéressent beaucoup au laadum donc ñooñu tamit war nañu fexe ba ñuy ñëw di jënd euh, suñu suñu suñu suñu laadumi bu baax a baax looloo waral suma voyage yu bëri si si sous région bi c'est pour vraiment faire la promotion euh, du laadum ah te macha allah ça porte ses fruits parce que gis nañu depuis un an euh, deux ans de plus en plus les éleveurs gambiens les éleveurs maliens les éleveurs même nigériens et mauritaniens s'intéressent beaucoup au au laadum ah, donc pour améliorer leur cheptel ah donc loolu yaakaar naa ne suñ ko gën a loolu aussi c'est c'est un marché beneen marché bi aussi mooy à à l'échelle vraiment carrément internationale euh, en Amérique ou en Europe ou, ou en Asie te loolu aussi c'est c'est possible mais loolu pour que mu gën a possible aussi il faut que le laadum vraiment après avoir été standardisé standardisé mu ko qu'il soit homologué le laadum une fois homologué mun na dem si si si dëkk yooyu parce que ay dëkk yu mel ni ay Brésil ak yooyu ñooñu vraiment ils sont très regardants sur ça ah ñoom suñu naree dugg si benn souche de race day fekk mu nekk une race vraiment homologuée reconnue et tout ci lañ si soog a dugg te loolu nag aussi au niveau de la fédération ñu ngi siy liggéey bu baax je peux dire aujourd'hui le pour cent du travail a été fait et am nañu yaakaar ni si fi ak premier semestre 2023 bi dinañu egg fi nga xam ne dañu war a mën a homologuer laadum bi et une fois que le laadum sera homologué je pense que à partir de ce moment là laadum bi dina mën a dem au Maghreb dina mën a dem en Arabie dina mën a dem en en Afrique du Sud dina mën a dem au Brésil même pourquoi pas en Europe et loolu ce sera des marchés vraiment intéressants et à partir de ce moment la on ne parlera plus de mévente. Et à partir de ce moment-là, je pense que sur une bergerie, ce sera de véritables industries. ok sur le plan commercial laadum bi gars yi ne nañ dafa cher c'est trop cher te Sénégal dañu gis ne chaque at chaque année chaque fête de tabaski dañu am problème mu autosuffisance su euh, mouton donc ñu gis ne aussi tamit donc loolu mu nekk un problème boo xamante ne nii problème la ci problème yi. aussi te du Sénégal yëpp ñoo am possibilité wala am moyen pour mun a jël xalu laadum vu que gis nga ni mu chéré donc naka lañ mën a def tey ba Sénégal nga xam ne dootul jéegaani Mali dootul jéegaani Mauritanie donc di consommer local bi am autosuffisance bu bu doy pour mun a alimenter tabal bi nga xamante ne mooy tabaski. waaw euh, en fait laadum cher na loolu c'est relatif parce que laadum aussi ay catégories yu bëri la euh, laadum def am yu cher euh, te cheraay bi sax dama ko def entre guillemets. am na laadum aussi yu abordable parce que tey jii ñit yi dañu yaakaar ni laadum boo gis rek ay millions lay jar alors que c'est pas le ka te jii am na laadum buy jar deux cent cinquante mille am na laadum buy jar cinq cent mille comme nu mu amee laadum buy jar deux millions comme nu amee laadum buy jar trente millions donc ay catégorie la c'est-à-dire laadum dafa amay critères critères yi nag xar bu ko remplir à cent pour cent da ngay constituer une exception ah mooy xar boo xam ni njool na gudd na rëy la comme nu ñuy wax ah gudd na trop njool na trop yaatu na trop euh, rafet na trop rafetaay bi aussi dafa am ay critères yu bëri bopp beeg geen beeg béjjën yeeg ainsi de suite robb beeg yooyu donc xar bu motalee loolu yëpp critères yi ñu bëgg si laadum yi nga motale ko à 100 pour cent ça constitue une exception te exception fu mu am rek de de euh, mooy mooy dafay chair ah donc euh, euh, euh, maintenant ces exceptions nag ces laadum d' exception là c'est c'est ça fait pas même pas 10 pour cent de des laadum ah donc yooyu ñoo jar yenn prix yi te yooyu aujourd'hui c' est de la semence su ñu waxee laadum bu jar par exemple un million du du yàpp bi moo tax ñu wax mais jiw la jiw nag mënul mënuñu ko méngale ak lu dul jiw ah tey jii euh, mboq bi ngay def jiw ak mboq bi nga xam ne dañ koy consommer wala da nga koy jox jur mais munoo leen comparer donc c'est c'est laadum bi jiw la maintenant si am na laadum yi nga xam ni cheruñu ah euh, mooy catégorie moyenne bi yooyu sax ñoo gën a bëri ah yooyu tey jii moom laa wax tey jii mun nga si am sax yoo xam ni tabaski bi gis nañ fi ay laadum yi nga xam dañ koy jaay deux cent cinquante trois cent mille loolu aussi am na ñoo xam ni am na catégorie sénégalais yi nga xam ni bon ah, yooyu la ñuy jënd. tey jii bëri na ñi nga xam ne dañuy day pour faire plaisir à leurs parents dañuy jëm jënd laadum sax 500000 wala 700000 yàlla euh, may na ni mu mayee moyen ñoo nga xam ne dañuy jënd ay montre 1 million montre 2 millions noonu la mayee moyen aussi ñi nga xam ni bëgg a bégal seen seen dem jënd xaru 800000 wala xaru 1 million wala bëgg a euh, bëgg a bégal seen i sëriñ dem jënd jënd xaru 1 million jox leen mais ku si nekk yàlla am na lu mu la may ah am na lu mu la wërsëgal donc li ngay def dafay tolloo rek ak say say moyen maintenant ñi nga xam ne aussi amuñu moyen xaru yeer aussi ñoom dañuy jënd xaru xaru xaru xaru coggal yi mais il faut reconnaître que y a une différence entre par exemple xaru yeer ak xar bi nga xam ne xaru coggal la parce que tey jii soo leen doon peese tey quand ah, euh, pois bi day passer du simple au double parce que tey jii xaru xaru su ma joxe exemple xaru xaru benn xaru pël-pël par exemple ah euh, adulte lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu dix dix dix dix ah bon peut-être ay ay ay ay ay soixante dix kilos quatre kilos la lay lay kii alors que tey jii laadum yi day dem parfois même jusqu'à au delà de cent cinquante kilos donc c'est ça qui fait un peu un peu la différence maintenant pour ñu bañ a dugg si amalgame boobu nañu considérer laadum comme de la semence suñ ko considérer comme jiw bu boobaa ñu naan cher na wala cherul mais bu fekkee yow da nga ko bëgg jël laadum bi méngale ko ak pëlpël wala méngale ko ak ndaama wala méngale ko ak xaru charolais bu boobaa di di nga di nga ne dafa cher parce que bu boobaa da nga yàpp bi rek ngay gis alors que laadum bi du yàpp bi la ñu gis laadum c'est une race extraordinaire qui a été créée par les éleveurs sénégalais et qui a pour objectif de d'améliorer le le cheptel local tey jii laadum loolu mooy njëriñam améliorer suñu race yu ndaw yi ñu am fii parce que tey jii muy pël-pël bi di raw di warale bi tey jii soo jëlee agneau ah parce que ñu waxee yàpp dëgg dëgg dëgg agneau la soo gisee soo jëlee agneau nga rendi agneau pël-pël wala agneau euh, warale bi ah doo am lu ëpp di kilos doo am lu ëpp 10 kilos xam nga loolu dafa tuuti alors que race européenne yi tey jii soo rendee agneau da ngay am plus de euh, cinq kilos wala plus de 30 kilos ah mais tey jii suñu jëlee nag laa laadum bi boole kox euh, euh, warale boobu wala boole kox pël-pël boobu mais di nga am agneau yi dinañu passer de 10 kilos à 15 kilos wala de 10 kilos à kilo kilos mais loolu lan mooy suite bi autosuffisance en viande et qui dit autosuffisance en viande dit autosuffisance en mouton voilà parce que xaru laadum dafay gudd dafay njool dafay rafet beauté bi comme ni mu ko waxee mais euh, ci bergerie Galéa ñu tàmm ci gis wala ñu tàmm di ci dégg wala ñu tàmm ñuy jël ay compétition yu bari di tàmm di fi gis ay ay ay sujet yoo xamante ne ni du am fenn donc ci li nga wax ci beauté bi donc ci rafetaay bi ci njoolaay bi ci gudd bi tey secret bi mélange bi ngeen di def tey pour mun a génne parce que bergerie Galéa ndaanaan yàgg na fi génne ci wàllu xar donc tey naka ngeen di def. ci croise li ngeen di croiser ba fexe chaque année rek donc ñu leen di tudd chaque année rek ngeen di wane loo xam ne ku ko gis ci wàllu laadum dafay jàpp gémmiñam waaw xam nga bon élevage euh, c'est la science en quelque sorte ah bon su ñu waxee science nag si élevage <laughs> mooy génétique te man wax fa dëgg yàlla dama gëm génétique dama gëm science dama gëm génétique donc lépp lu may liggéey foofu laa ko basé lépp lu may liggéey si génétique laa ko basé parce que loolu mooy li nga xam ni Euh, doo juum waaw doo juum donc soo jëlee euh, des souches ici des meilleures lignées nga croiser leen entre eux tu as forcément un résultat extraordinaire maintenant en tenant compte toujours de la science parce que aussi am na yeneen aspects yi nga xam ne da ko war a jël en compte lu mel ni ay consanguinité da nga ko war a jël en lu mel ni environnement xar bi aussi soo ko su su génétique bi baaxee parents yi baax ah ñu euh, amul consanguinité da nga leen di def fu baax aussi ñu nekk à l'aise waaye environnement bi dafa war a jouer ku wax environnement nag wax euh, vraiment salubrité euh, donc litière bu baax wax aussi aération donc ngelaw bi dafa war a jaar fu nekk wax aussi lumière parce que dañu soxla lumière bi dañu soxla naaj bi léeg ah donc ku wax environnement également mais euh, wax euh, xar bi da war na am soo bu fekkee danga nga karalee sa sa sa mur war na bi war am fu mu waxatu léeg nga defal tegal ko benn benn ëkk bi nga xam ni foo lay mbëkk bopp bi wala fa lay waxatu pour parce que loolu yëpp day bokk lii tax xar bi épanouir ah la densité de l'enclos aussi bokk na si environnement ah xar yi waruñu nekk à l'étroit tey jii euh, xëy na soo xoolee yenn normes européennes yi on peut dire un mètre cinquante euh, mètre carré mais moi je dis que tey jii élevage laa dum war nga xar bu nekk euh, war na am minimum deux mètres carrés xar bu nekk par mouton parce que xar bi da nga ko jëlee si environnement àll bi ñëw indi ko environnement tëj ko donc soo ko tëjee tamit warul sentir boppam ni dafa nekk si prison dafa war a mën a dox di circuler dafa war a mën a noyyi xar bi su juree dafa war a am assez pour que moom mu bañ a tëdd si ay doomam parce que tey ji xar yu bëri éleveurs yu bëri dañuy yeewu gis seen mbote dee du ñu xam lan moo ko rey ndeke yaay ji moo tëdd si wetam te lu tax mu lu tax mu tëdd si kawam c'est parce que dafa xat donc loolu yëpp mooy environnement bi suñu waxee loolu tamit euh, alimentation bi ci la alimentation da ngay joxe une bonne alimentation riche et équilibrée ah donc équilibre aliment bi tamit dafa am solo te loolu yow aussi il faut faire appel au nutritionniste mu wax la bu fekkee euh, da ngay jënd usine soo demee usine dinañ la bi bii aliment moo gën a complet bu fekkee da ngay defal sa bopp aliment da dem ah, tu fais appel à un nga ne ko lii ak li ak lii alam mu ne la lii di joxe si tant de pour cent lii joxe si tant de pour cent bu boobaa di nga am sa aliment bu bu bu bu bu bu complet bu bu bu équilibré ah donc yooyu yëpp si c'est un géniteur nga xool. kañ la war a noppalu kañ la war a tëb si c'est une femelle nga xool nan la war a kiwee suy su suy lan la war a lekk suy nampal lan la war a lekk suy waaj a tëbu lan la war a lekk ainsi de suite ainsi de suite un jeune mâle lan la pour mu croissance am gaaw si yan condition nga koy def donc yooyu yëpp nag soo ko respecté hmm, mooy di nga am un champion parce que un champion c'est ce qu'on dit c'est le génotype c'est le phénotype Le génotype, il y a le mot gène, c'est les gènes, c'est les parents. Donc ça veut dire les parents sont bons. Le, le phénotype, c'est euh, le génotype plus l'environnement. Donc c'est quand euh, tu prends un sujet de, bon euh, de, de, de, de, bons parents, tu le mets dans de très bonnes conditions. Lolo, euh, c'est forcément dans un phénotype, tu as un animal vraiment qui est à la fois beau et grand. e loolu mooy phénotype bi parce que phénotype bi c'est eh, mooy euh, manifestation xar bi nga xam ni eh, xar bu baax bi nga xam ni qui est bien nourri donc yooyu soo ko defee là tu es sûr euh, d'avoir euh, toujours de bon champion et je pense que bon ñun côté boobu aussi euh, wu ñu sur les moyens par rapport à ça par rapport à la au, à génétique par rapport à l'environnement par rapport à l'alimentation et loolu la ñuy digal éleveurs yëpp aussi donc donc loolu nag donc ñi nga xam ne ñoom ñooy éleveurs yi xëy na être moo lay gën a concerné mais su fekkee da yar voilà nga mel ni man comme yaru tabaski rek moo la tax a jóg xëy na peut-être doo xool ci loolu yëpp mais li mu fi wax ci domaine technique la boo nekkee éleveur rawatina les ñi nga xam ne dañuy nouveau ay nouveau la ci élevage bi donc loolu jar na bàyyi xel mais grand tey dafa am benn éleveurs yi ba dañ ma yóbbante ci benn benn sa benn sa benn sa benn sa benn xar boo xam ne tey ba léegi mu ngi def bàyyi coow ci ci ci ci ci ci milieu élevage muy Galati. donc ñii di ma wax ne boo demee neel grand abo galatique kan mooy yaayam parce que dama toog ci benn jotaay éleveur ñu werante ba mu tàng benn waaye ne ma laajteel ma galatique kan mooy yaayam kan mooy baayam donc question boobu question question éleveur yi la donc moom laa lay laaj après ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah. waaw donc galactique euh, yaayam euh, limousine la tuddoon limousine doomu Diamant euh, Noir la Diamant Noir ñëpp xam ne nañ ko kër Moussa Yade c' était une vraiment balèze ah Euh, donc jamaanoir euh, la ak abu bu ndaw abu bu ndaw euh, mooy abu alpha ah def ko kuku quoi <laughs> moom la wax abu bu ndaw suma cousin la abu kan la tudd donc abu alpha donc abu bu ndaw ak jamaanoir ñoo jur limousine yaayu galactique abu bu ndaw nag doomu koddu la ak Sidi Gueye koddu nekk doomu góor gi donc foofu soo xoolee galactique euh, doole bi daf ko am aussi bien côté papam que côté yaayam donc côté yaayam déjà euh, góor gi bi rek borom doole la woon góor gi bi nga xam ne moo jur abu bu ndaw bu moo jur koddu koddu jur abu bu ndaw ba pare jamaa noir tamit dafa amoon doole man bi ma njëkk a dem kër musa Yat jamaa noir moo njëkkoon impressionné bon maintenant euh, côté papam Biram de Galoya la juddoo donc côté yaayam soo xoolee koddu maamam Euh, Galoya la judd côté papam aussi euh, Biram 2 Galoya la juddoon man maa ko tuddee woon Biram 2 ah parce que surtout euh, Biram Jéeme la moom yaa Biram 2 yaayam doomu Biram Jéeme la ah yaayam doomu Biram Jéeme la bi nga xam ni yaay ji si métissage bu ma liggéeyoon bali bali kii bi laadum bi si métissage boobu la la la woon ah donc yaay ji doomu doomu Biram 2 la. Euh, papam euh, benn surtout euh, Taïzel la woon bu rafet aussi donc ñooñu ñoo seq biram 2 boobu ak limousine ñoo seq galactique te biram 2 aussi ku ko xam-xam ni dafa amoon doole moom lu loo soo xoolee li li lay njëkk impressionné mooy doole bi mu amoon voilà donc doole boo xam ne daf ko jëlee si biram 2 si biram njéemé ba pare jëlee ko si si côté yaayam parce que yaayam surtout mère bi la donc euh, euh, quelque part c'est mooy li may wax rek génétique bi euh, tout se justifie quoi ah soo xoolee su suñu la nee galactique doole bi fan la ko jëlee rek c'est facile à justifier côté yaayam dañu am doole côté papu yaayam dañu am doole côté papam dañu am doole si côté yooyu yëpp donc voilà. le monde élevage ñu ngi koy jooy ba léegi mais est-ce jàpp nga ni tey lu mel ni galactique tey galaya mën nañ ko amaat génneewaat parce que galactique moom beneen affaire la. Non, Galo euh, Galactique, euh, c'était un phénomène. Hein, c'était un phénomène. Mais bon, je di que Galaya, euh, euh, Galactique, bon, papam, moi judo Galaya. Mais Galactique, si boppam si kër Ker Moussaïad le judo. Après, moi j'ai quoi BDK. Hein? donc, si, si wa BDK, le, le, le, le magué. Hein? Mais euh, je dis que Galaya, en quelque sorte, le Melni Galactique, ou le Lugan Galactique, ça, judo neuf aussi. parce que Grand Rame aussi euh, soo xoolee euh, moi je personnellement c'est mon avis propre pour man il était meilleur que que, Galactique d'ailleurs euh, Grand Rame bi muy am deux ans net nga xam ne croissance am màggagul daje woon na ak Galactique concours. Galactique jël premier moom mu jël deuxième te boobu moom il avait que deux ans pareguloon màgg ah te soo xoolee au finish au finish wet bu mu amoon hauteur bu mu amoon. Euh, presque euh, demoon na ba mu ba mu ëppoon galactique parce que ñoom daje nañ fii ah donc euh, magistrat aussi naka noonu am na fu mu ëppee ak galactique am na fu ko galactique ëppee donc ñoom ñëpp c'est des c'était des mâles à peu près du du du même calibre quoi donc maintenant am na yeneen yi nga xam ne actuellement juddu nañ fi bon yoo xam ni actuellement sax ñu ngi si gétt yi yi nga xam ne war nañ dañuy naan à suivre ah dañu naan à parce que bon l'autre jour j'ai été agréablement surpris euh, dem naa Bergerie Arena fekk naa fa benn surtout benn doomu euh, Grand Rane bi ñuy naan Madja et ça je je lance au défi un défi aux éleveurs et ma ne leen bàyyi leen xel si Madja bàyyi leen xel si Madja. <laughs> merci Gara c'est un plaisir vraiment. tey c'est un grand plaisir vraiment tey sax ñu jàkkaarloo ak yow ku mel ni vraiment donc toog ak yow dafay neex trop parce que motivation la aussi en tant que jeune mais aussi tamit donc dafa am lu muy wone aussi tamit sur le plan euh, national comme international ci monde bi nga xam ne wala ci secteur bi nga xam ne yaa ngi koy évoluer mooy le secteur de l'élevage nga ci bay sawar ci am solo donc lii moo nekkoon émission bi Ladoum comme ni koy faral di émission tey ñu ngi woon ci Galoya duñ ko présenté kenn donc xam naa ci kanam tuuti donc di ngeen seetaan li nga xam ne moom lañ fi jël donc quelques exemple rek donc lañ fi jote ay démonstration yu ndaw quant à moi je vous dis bye donc voilà Souleymane Jules Ba ci présentation bi donc wala euh, ayda Aïda Badiane moo nekkoon ci cadre ci ci ci caméra bi merci beaucoup grand sa mot de la fin comme ça après ñu yeewi la waaw jaarëjëf euh, ma di xanaa di jaajëfal éleveurs yëpp di lay jaajëfal yooyu aussi di naan éleveurs yëpp euh, nañuy suivre Senclic euh, vraiment mu nekk benn réseau social bu bu am doole bu quand même bien suivi et dañuy def liggéey bu professionnel donc di leen di remercier d'avoir été à Galoya di wax aussi nous on se porte volontaire pour être un partenaire di liggéey pour liggéey ak yéen un partenariat vraiment sérieux et fécond Merci beaucoup.